Nous ngi ici à Bakel après toute une journée de travail d'abord nous euh, sentions Yalla bu baax nous ñu donc maire ak euh, accueillir ensuite ne que travaux yi des résultats yo presque dafa dépassé li ñu njortoon ci d'abord euh, piste rurale ak désenclavement tournée bi permettre de lancer programme spécial de désenclavement bi nga xamné département pour un total de 260 km de piste yakarna 260 km de piste qui ko département Bakel ak département euh, département Goudiri dina am lu lu mobilité également travaux yi permettre na ñu évaluer fan la troisième tronçon route Tamba Bakel bi tollu tronçon bobu mo jóge Kidira di dem Bakel route, ak techniciens yi confirmer nañu comité régional de développement bi que ouvrage d'art yep paré comme nous l'avons dit, dugg ci travaux yi dinañ un peu mais dès la sortie de l'hivernage dinañu entamer travaux qui ko ci ni mu gëna Tamba Goudiri ak tronçon Goudiri Kidira ci walu bobu ñëpp félicité nañu également entreprise bi mais encore concentration engagement pour que nous troisième tronçon bi ci ay anam yu nga xamné bo boo de Tambacounda yaa ngi dem directement Bakel sans arrêt et sans difficulté réalisation route bobu nak déjà amna na lu mu soppi lu Qui ci en tout cas région de Tambacounda ak ci axe bi muy traverser yépp donc suñu yaakaar mi ngi gën yokku que dynamisme économique bi ak dynamisme social bi réalisation infrastructure routière yi dina ko mëna réglée. donc régler ñu tek ci parking gros porteur toujours ci wàllu infrastructure routière ce matin il faut que nous def euh, euh, visite que le niveau d'avancement des travaux est très acceptable très acceptable parce que déjà nous nañu mur sécuriser également donc assiette par contre à une contrainte bu nous ci assiette camion yu bëri yi donc Mali nous le fofu fou compte tenu contexte bi ñu bloqué tous les mi ngi bloqué qui travaux à Gérouti, ci walu terrassement bi ak walu yenen commodité alors bi ñu analyser loolu ba pare euh, en place un comité local Nous dénk ko sous-préfet bu Kidira mu am maire de Kidira ak maire de Belé, plus à AGEROUTE ak ne kep pas xamné euh, sa participation dina dimbalé comité bi notamment transporteurs yi ak borom camion yi alors donc euh, dinañu wara xol rapidement ben place à côté bu amul ben jafé jafé ñu waxtaan ci ak camionneur yi camionneur yi mëna déplacer sen camions, libérer air bi ñu wara terrasser ensuite Ageroute liggéey rapidement terrassement yi ak yenen commodité yi pour que véritablement gros porc gros euh, parking gros porteur bi paré ci walu bobu nak déjà félicité na le maire de Kidira mais mangi féliciter particulièrement le maire de Belé... parce que ci biir journée bi mon gouverneur ci recherche de solution bi man amna ben espace bu soriwul noonu fi camion yi nek mettre à la disposition de la l'AGEROUTE et du comité ñu mun jallalé les camion yi ci jamm fofu libérer espace bi donc nous ko war ko parking bi donc mëna fonctionnel vraiment ci en tout cas infrastructure routière yi visite bi un grand bon pour les deux départements de Bakel et de Goudiri deuxième axe bi l'électrification rurale d'abord exposé yi que Tambacounda ci walu ñaari département yi dina am 70 villages nous ñu électrifié par le PUDC qui cadre 2000 villages à électrifier vraiment 70 villages si nous ko nous ci li am dinañu euh, def ay accès à l'énergie dans ces deux départements loolu le PUDC à travers Kiko ko toogal fii leeral nous wax que entreprise qui ko a def jël nañ leen ba les travaux yi aussi accès à l'énergie de même que centrale solaire yi nga xamné ne PUDC defoon na dans la phase 1 heure bi ñu jox ko Sénélec laaj naa leen ñu dawal lu gëna gaaw pour sen mise en œuvre nga xamné population yi ku ci bëgg abonné wu euh nga dem ci structure yi wala nit ñi fekk la sa dëkk nga abonné wu nga mëna disposer de l'énergie donc ça adina mëna changer avec l'arrivée de l'énergie mu dess dernier point bi moy problème ndox mi bobu nak euh, mo ñu gëna le temps qui travaille, et c'est normal vu la sensibilité de la question de l'accès à l'eau ci le bobo d'abord demandé woon nawa de OFOR ñu ñëw fekkee tournée bi euh, responsable yaa ngi une fille, wa SOGES également ñu ngi une fille ak wa brigade régionale euh, division régionale de l'hydraulique de Tambacounda ku nekk def na exposé am acteurs yi comprendre nañu lu bëri lu ñu comprendre woon maa donné période yoolee bi nit ñi di yëngu population yi ne woon sous préfet yi ak préfet yi que yoon la ñoom ñu jàpp ne SOGES l'unique responsable mais naxante leen ak ñoom ba yàlla indi ñu suñu jaaree fi ñu a jaar jox leen information yépp dinañu xam ne que mbirum ndox mi ñetti entité ñoo yor présentement au Sénégal c'est vrai ministère d'abord en tant que tutelle au bi nga xamné mom mo wara def réalisation ak ouvrage yi ak SOGES bi nga xamné mom mo yor exploitation ak gestion alors ci walu bobu wax nañu au OFOR euh, que lepp lu ñu programmel pour région bi ñun équipe régionale de développement bi dinañ ko accompagner pour que forage yi ñu bindal région de Tamba ñu mun ko réaliser ak un système yëpp concernant maintenant la SOGES donté ñu ngi leen soutenir parce que réforme état la té ñun ay commis de l'état la ñu amuñu benen posture bi ñu wara am soutenir les réformes qui ont été décidées par les pouvoirs publics mais nañu gëna taxaw néna naa leen mënuma admettre que ñu tok fi à Kidira wala à Bakel seen antenne amul benn pompe buñu stocker ben benn matériel buñu stocker nga xamné une panne bu avons il faut ñu yónnee ba Dakar mu jël ay jours ñu soko indi waat lolu c'est fini parce que c'est inadmissible Nous, it nangu nañ ko déjà dinañu fi prépositionner tout ce qu'il faut comme pièce de rechange dinañu prépositionner aussi à Coupentoum tout ce qu'il faut comme pièce de rechange ak ay Auto, plus ay techniciens yi nga xamné dès que ñu signaler une panne dans les heures qui suivent ñu yegg ci lieu bi diagnostiquer panne bi défar ko mun a permettre population ñu am ndox